tey président Macky Sall duñ ko ko xëpp ndax sénégalais yi mer xamatu xamatuñu fu nu jëm jaaxle nañ seen biir réew Sall nag ban koy fal utoon na porox ndoola ba boole wun ko ci Abdoulaye Wade tey jii nag yéen ñi uufu ci keppaaram keppaar googee mal faranku laay ca ay détournement de faranku laay ca def lu ne weng te dara du la ca fekk faranku laay fa